asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ci xuraasul iraada yëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy dégg ak fu ñu mën a déggee ci kaw suuf di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp wir di ñaanal ñëpp mucc di ñaanal ñëpp mbir mu jub yàlla yàlla eggale koor gi ci jàmm te lépp lu ñu jaamu yàlla ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu te bu ñu génnee koor gi itam yàlla na yàlla def lépp lu ñu mas a jaamu yàlla nangu te fulandiko ñu ngi leen di nuyu bàyyiwuñu kenn maanaam tan bi bi ñuy def nii xëy na mën naa bañ gudd waaye euh, leeral la rek loo xam ne euh, daanañ ko fi leeral ci jamono yi weesu woon te itam nañ gise woon ñun di ko waxe ba léegi te noona lañu continuer ah, te gëm naa ne noone ñu gisee bari nañu ko gisee xam nga ba léegi boo déglu waa assemblée nationale ñu ngi coowaloo ah, ci lan lañuy coowaloo ci wàllu ay loi yu ñuy tëral léeg-léeg nga dégg ñu tudd fi ñooñu nga xam ne daanaka tudd gi ñu leen di tudd tax na ñu bari ci gone yi ñàkk xel yi wàbb jëm ci seen biir ngir publicité la ci ñoom euh, gone dama waxoon ne gone ku ne la mën naa doon ab sëriñ mën naa doon président de la république mën naa doon ab capitaine mën naa doon ab général mën naa doon baykat mën naa doon nappkatu jën mën naa doon ràbbkatu yére mën naa doon dawalkatu oto mën naa doon mécanicien ma gone daal ku la waaw ku ne la kullu mawludin yuladu ala al fatra la yonent bi sallallahu alayhi wa fatara naasa alayha la tabdila li xalqillah dalika diinul qayim alxuraan bawul dara waaye du ñëpp ko mën a lijjanti ba génne ko ci ci biir fikratullahi allati fatara naasa alayha mooy wa allama adama al asmaa kullaha ja ja ca baqara wa allama adama al asmaa kullaha jooju moo may doomu adama bi am juróomi doom Euh, yar leen ba ñu toll ci juróom-ñaari at ñi làkk wolof mu jël kii yóbbu ca école arabe ba mu jàng ñëw di làkki arab benn ismoo ngoog mu jël kii yóbbu mu jàngi anglais mu ñëw ci kër gi làkk anglais ñaari ismoo mu jël kii yóbbu mu jàngi espagnol mu ñëw ci kër gi di jàng di làkk espagnol ñetti is mu jël kii yóbbu mu dem jàngi allemand dikk di làkk anglais eh, allemand ñeenti is is moo te ñoom ñooñu buñ dajee ci biir kër gi ku nekk jàngal sa moroom làkk wi nga jàng dañuy mujj dégg arabe dégg français dégg anglais dégg allemagne dégg eh, espagnol dégg portugais dégg dégg italien dégg leneen loolu mooy wa allama adama al asmaa ba léegi ba léegi loolu mën na tekki wa allama adama al asmaa kullaha te ci moom adama lañu ko lañu ko donnee nit ki mën naa nekk ab ab maçon ci kaw tabax di tabax ba wàccam jot mu wàcc taal otoom di ñibbi tudd ab chauffeur wa allama adama al asmaa kullaha loolu nit a ko nangu mën naa dem dégg nodd ga mu dem ci jumaa ja jiite di xutba tudd ilimaan loolu tamit nit nit a man wala ma dama asma kulaha mën naa ci fanaan yend waaye noonu itam taalimul asma dafa dem ba ci di siiwal bon ci noppi ay gone ndax gone dafa dafa sensible te dafa deñ kumpa te itam nit dafa bëgg siiw bëgg ñu di ko tudd euh, da ngeen di seetlu am na fi jamono joo xam ne gone yëpp dañoo màbb di raste seen bopp yi di ko royee ay nit ñu siiw ñu nekkoon ca bitim réew ñu leen di tudd fu nekk te sax la ñu nekkoon du lu yàlla gërëm waaye coow gañ leen ca doon coow tax na euh, gone yi di leen roy bu ngeen xoolee fii ci réew mi amoon na fi jamono joo xam ne benn woykat bu siiw mën na kaa tudd sax Youssou Ndour mën naa kaa tudd ndax jàmm laa koy tuddee moo tax euh, ba muy gën a nekk xale nga xam ne xale yi dañ ko doon dann topp koy coow booba dem na ba egg mbaxana mu mu sol rek gone Sénégal yépp sol mbaxana moomu ndax siiw gi ko yàlla joxoon moom moo taxoon ñu yaakaar ne ku sol mbaxana moomu muy sol siiw ni moom loolu nag dem na ba ci yu safaanoo ak dëgg yi ak yu safaanoo mbaax yi nga xam ne eh, ñi ngi koy am indi am indi am indi am indi am indi ci réew mi am indi googu ñu koy wax ci réew mi di ko coow di ko coow di coow day tax gone yi dem dugg cay seet naan lii mag ñi di coow guddi bëccëg dama koy dem seeti ba xam lan moo ca ne loolu moo taxoon ma wax ne su fekkee da ngaa yi nga xam dañ laa jàngal doomu adama ki jikkoom ki pasiinam nga xam ne fitratullah illati fatara naasa alayha eh, awa allama adama al asmaa kullaha daf caa bokk te ñun ñëpp ay doomi adama lañ te doo te gone lu mu dégg di ko seetee ka di ko gëstu ji lu ñutu yi moo tax lu bon buñ ko dee def ci ak nëbbu da ngay nëbbu xeex ko waaye a lu bon buñ ko dee def ci ak nëbbu yow nga dem ca marché ba di ko fa xeex yaa ngi koy publicité yëguloo ko loolu nag ñu bari dañ ko dul xam dañ ko dul xam ah aadama dina dem ba egg ci buy xeex bon nga ne ko waaw xeex gi de baax na waaye nii nga koy xeexe du mu ne kon ko yow ku bon nga ku bon nga waaw ku bon nga waaw ndax dañuy xeex lu bon nga nga ne ni koy xeexe du ni kon kon yow da bon kon yow da faral ñi bon te nit ki du lépp la ko yàlla xamloo am na loo xam ne bu bu ci nit ñi dee yëngutu dañ cee war a boole ñëpp ak seen xalaat kenn ku ci xool ne ah lii de bu ngeen ko jaaree fii du baax mën na mën naa indi musiba ñu seetlu la mu war alxuraan bàyyiwul dara lépp ngi ci biir te ba man yuutal xikma faxat uutiya xayran kasiran te xikma jooju mën naa tekki addis xikma jooju mën naa tekki tasawuf waaye xikma jooju it mën naa dégg xel mu ñaw mën naa tekki xel mu ñaw boo moo xam ne ah, lépp lu yàlla yëkkati kàddu wax ko rek nga mën caa déggee yu baree bari yoo xam ne kenn du ko weddi loolu nag Ibnu Taymiya ku ko amoon la waaw lëg moom xam ne guddi nay nopp gàtt mën naa daw waaw <laughs> Ibnu Taymiya moom ku amoon dégg alxuraan la ku mënoon a génne ay masala ci alxuraan la waaye xam nga yonent yàlla yàqu ba <clears throat> ba mu yebal doomam ya ñuy dem di sàmmi te boole leen ak yusufa booba till amoon na ci àll bi <clears throat> te it booba till daana songu gone lekk ko waaye du doon gone gu ànd ak i mag ñu yor seeni yet moom doo nga lay doon loolu nag ñu ngi ko doon defee ca bilaadul arab fa nga xamee ne ah, dafa nekkoon ay désert niiw niiw ay garab rab ya bariwu fa foofa la foofa amee woon waaye xam nga ba mu yebal doomam ya te di leen boole Yusufa lamuleen mu leen wax ne axaafu an yakula o dibu dama ragal till gi lekk ko loolu firaasatul mu'min la kashfu la maanaam yaqoba ab yonent la xamoon na ne bu gone yi demee danañ ko sànni ca bënn ga te itam buñ dikkee danañ ko wax ne till yi ñoo ko lekk loolu lépp yaqoba xamoon na ko ndax ne woon na doomam yow inni alamu minallahi ma la taalamun kon xamoon na loolu lépp ndax yàlla xamaloon na ko ko waaye sax gamu ko sax sax gamu ko sax ne leen dama bañ ngeen dem yóbbu ko ci àll ba ti lekk ko waaw baat boobu mu leen wax moo tax bañ demee ñu ne kon am nañu lay sa papa nee na euh, dama ragal ti lii lekk ko waaw nan ko rey buñ ko royee nekk ci lii ko lekk waaye gis nga dogalab yàlla fi mu nar a jaar ka ci ma ne ne déedéet bu leen ko rey nañ leen ko <clears throat> sànni ci bënn gi <clears throat> teen bële teen kalañ boo xamee ne jëg jaar nañ fi bu ñuy wëgg génn ko buñ ko génnee yóbbu ko jaayi ko ndax am jaam lañ ko def bu ko defee dootu mën a te ñëwati fii ko defee ngeen des ak seen bàyyi kon kooka itam ma fexe ba yusufa moom bañ a tàqook ak dundam donte lay nekk ab jaam ci meneenam réew waaye bañ demee def loola ba dikk waxuñu ne fenaluñ seen baay te loolu itam ñu bari duñ ko setantal ba ñu ñëwee eh, te demoon di dóor dàqee bàyyi ko ne ko toogal fii ci sunu mburu taal yi ñu war a añee jeeg suñu bagage yi léegi nag tili nga lekk ko te ñun yëguñu ko te xam naa ne ñun sax eh, doonu gëm doonu gëm même bu ñu waxoon dëgg loolu mooy li ñu wax dëgg <laughs> te loolu loolu ñu bari nañu ko ndax ñooñu itam ay anbiya u la ñu woon te nabi yu du fen waaye kenn xa kenn seetantalul ne ñoom waxuñu wax fenuñu ndax dañ ne seen bàyyi eh, danoo demoon di doon dàqee ca ko montagne teg ko ca xurwa ne kon dañu seetlu suñu bagage yi waaye ñu tax ba ba mu neexee ba neex ñu fàtte ko ti digg ñu lekk ko te yëgguñu ko fekk booba dañ koy sàggane te yow sax xam naa ne bàyyi doo ñu gëm doon te dëgg lañ wax loolu mooy loolu mooy waxuñu dëgg <laughs> dégg nga waaye loolu ñu bari dañ koy setantal waaye li ma ci li may jiblu ci loolu ci ba di ko leeral te mosoon naa koo leeral rek mooy euh, gone euh, ku ne la gone lu ne la lépp loo bañ gone dugg ci bul nekk di ko wax ci kanamam bul nekk di ko def ci kanamam gone bu fekkente ni gu góor la bàyyi ba xëy takk fasam war ko aw yoonu tool day dem utam gi tax di ko dañal naan ah, ah, te fekk ay tànki boppam lay dawee <laughs> loolu loolu dafa dafa da ngeen ko war a seetantal ñaareel ba gone su fekkente ni gis na yaay ji muy rootee ka ñëw di togg ka fuuta ka bale ka paase ka ma ay sama doom ji day ne naa gaawtu da ngay gis gone yu ndaw yu yoo xam ne ci ñetti at lañ jigéen di def comme noonu seen yaay di def di def comme noonu seen yaay di def gone day juddu euh, fekk baay ba doon ab murit mu daal di màgg rek wuyoo mbàkkee daal di daal di uti ab sëriñ takk ak maxtume tàmbalee jàng xasida aka dugg ci daayira yi xasida yee ko coowaloo dafa fekk baayam ala maa wajat naa ala yi aba ana jooju ah am na fépp de du ci yëfari dong ndax jullit ñi lañ fekk seeni baay nekk ca ca loolu la ñu nekk Euh, gone euh, dana dégg woykat bu siiw bu ñépp di coow mu déglu woyam di ko mokkal di ko mokkal di ko mokkal di ko mokkal moo xam rapport la moo xam leneen la ba mokkal ko mokkal goo xam ne bu taxawee di ko tari danga naa xanaa déedéet gone dana dégg jàngkat buy jàng comme Fallou Ndiaye wala Boubou Ngom wala yenn jàngkat yi wala ñoqaatif Guèye nit ñi di leen wër naan est-ce que di leen coow aka jox xaalis nga jékki-jékki gis ko ñoom itam dem fee dàq seen jël seen i permis yabal dàq seen i bant samp ko daal di tàmbali bu ñu mënut a yaasal jëlaat ji normal yi ñu di ko jaxase kon fitratullah illati fatara naasa mooy wa allama adama al asmaa kullaha daanaka kon ginnaaw doomu adama noonu la noonu la bindoo loo bañ say doom def ko te muy lu ñuy nëbb nga xam ne yow mi koy tudd sax du yomb ci yow nga dem ne mi ngi nii boo ko dee tudd ci sa keneen mi doom di ko coow bis bu nekk bu yàggee seen doom yi dañuy takk seeni dal dem seeti ne lii pàyyi di coow daal te kenn gisu ko dañ koy seeti ba xam lu mu doon ak nu mu demee te booba nag fekk yow yow yaay ki nga xam ne yaa marketing yow yaay ki nga xam ne yaa siiwal ba gone yi dem di seeti loolu ngay siiwal te kenn gisu ko te ñoom buñ demee duñ dellu si dañ cey continuer loolu moo taxoon duñ eh, ko duñuy jël coow loolu di ko yóbbu place de l'Obélisque si di ko yóbbu fu nekk di ko débat di ko coow may mer bis bu ne eh, xam naa ne ku nekk dana wàcc sa gémmi moo tax muy mer ci lii te man maa ngi mer ne saa yi ngeen ko coowee weer rek Ah, doo leen leen gis ndax fa ñu nekk dañuy nëbbu waaye boo fa demee yokk nañu waaw même lobby yi ñuy tudd ñaare boo gisee buñ ma nee sa waxtaan ci ma ne déedéet buñ nee sa waxtaan ci ma ne déedéet li ma ci xam mooy soo ci waxtaanee te kenn gisu ko gone moom day jóg di ko lu ñu tijji seet ba xam lii ñuy wax te kenn gisu ko kenn wus la gis ko fu mu présenté woo lu mooy lan dafa dañ kumpa loolu moo tax lu bon bu fekkente ni mën nga koo faj ci sa doole faj ko mu jóge fa waaye kat soo ko bëggee faj ci sa doole te mënuloo ko da nga yàq da te la ngay faj du faju lu bon su fekkente ni da ko mën a faj ci soo làmmeñ coow ko boo ko coowee mu jóge fa waaye kat su fekkente ni sa coow loolu mënoo ko coow toow ba tax lu bon faju nga di ko coow te xam ne sa coow lii du ko faj yaa ngi siiwal lu bon ba ku bëgg a bon xam fa bon nekk mu aw ca yoon wa dem fa bon yi ginnaaw yaa ngi koy siiwal ci soo làmmiñ ci surgu jot te lii ngay siiwal mënoo koo faj siiwal goog nga koy siiwal te mënoo koo faj gone gi bu ko gisee danaan lii daal li koy coowee bu dawuloon dëgg ba léegi jóge na fi daa dem dugg ca te fekk yaa ko ko yóbbee kon mbir soo la wëree ne soo ko coowee mu deñ waaye ko soo ko coowee coow la mënu koo dindi da ngay bàyyi coow la te seet beneen pësin bañ ci xol nag ànd ak faj ci doole moo gën a fulande ay aw yiw bañ ci xol ànd ak ci sa làmmiñ it mooy deuxième position yi waa ëpp waaye bañ ci xol te mënoo faj ci làmmiñ wala ci loxo aw yiw la waaye moo gën a néew waaye la mën a faj ci loxo nga di ko faj te ci bët ci biti nit ñi te sa xol ci boppam bañu loola loolu moom ak naafiq la loolu mooy zalika mën naa triple ngëm waaye mën naa nekk kër gu ngëm gu locc ngëm gu laccaaral ngëm gu ñàkk fayda ngëm gu niiw ñaari façon yëpp la mën a la mën a firi loolu moo tax coow lu bon loo mënta faj te muy lu nëbbu publicité ko la ndax gone dafa fatarawoo dañ kumpa te day dem seeti ko loolu moo taxoon bi ngeen di raj raj yi coow guddeeg bëccëg di raj raj yi coow guddeeg bëccëg jóge leen Ndakaaru jóge leen Thiès jóge leen Tambacounda jóge ñi ñi dugg di ci waa gone yi naa waaw li ñi li ñuy def li ñi li ñuy xeex nangam waaw loolu euh, su ngeen ko xeexee échec yokk ngeen ko doole publicité ngeen ko tudd ngeen ko seetantal Eh, <coughs> sàmm ndegam aw nag nga koy def te du ko teree ruur nga def ko aw béy te ko teree ruur nga def ko xar te ko teree ruur itam soo ko dee def jikko jikko jooju léeg-léeg mu ruur mënoo ci dara ndax ruur la bindoo maanaam bu fekkoon te ni da ngaa fab saw yet te amoo gitt ak nag nga ne kaa leen ñu ànd sàmmi nag yi te yow yuróoy nag dañ lay teg ab dof maanaam jikko dañ koy ji ji ko baat boobu lay tekki ji ko jikko dañ koy ji dañ koy ji waaw nit mu ngi mel ni tool ba ñu ruuj ba mu set ñu tocc ko ba mu saf ak tos yàlla ji xindi waaj taw nga bëgg ko ji bu la neexee nga jikoo mu nekk mboq bu la neexee nga ji ko mu doon gerte bu la neexee nga ji ko mu doon sëb bu la neexee nga ji ko mu doon bësi Fela Kongasaan Suuna Saaño Gajanga yaa xam loo ci bugg a def rek mën nga koo def ci tool boobu ndax bu ñu ruuj ba mu set la nit bu juddoo mook tool ba ñu ruuj ba mu set ñoo yem fatratullahi allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillahi kon pësin yi nga xam ne moom la mag ñi nekkoon ba jikko yu baax yi nekk fi su ngeen bëggee sàmm jikko yooyu mu continuer da koy sàmmee ci nga xam ne moom la ko maam yi doon sàmmee maam yi da nga daan gis koo xam ne dafa yar maam Cerno Ibrahim ba noppi ne ko demal Daaru Musi nga toog fay yare yar maam Cheikh Issa Dieng ba noppi ne ko demal njënd ak lagan nga toog fay yare bàyyi sëñ Mbàkke Buso mu nekk ci xawma ki naka la ki nekkoon ki nekkoon ki sëñ Abdourahman mu teg ko ndaam ginnaaw ba mu ko yaree ne ko toog fa yare kooku dafa boole woon sàmm ak soppi soppi soppi ak sàmm la boole woon loolu résultat wam gis ngeen ko mi ngi ne mi ngi ci réew mi soo demee kër maam Sidi Aji Malik noon la boo demee feneen noon la boo demee feneen noonu la xam nga ku fekk ay gone <clears throat> ñu géew di taaxuraan nga jël leen ca géewub taaxuraan ne leen taseere leen ko ñu tas ko du tax ñu bakko dañuy nëbbutu feneen di ko def waaye ba léegi ba ci géew ba ci fa ñu sol seen yëre yi rafet xeeñ la ko doon toog di jaay yi ba si fa bu yàggee dañuy fàtte taaxuraan maanaam koo bëgg a tere mu naan biiñ da koy indil café waaye bëli moom naan doo dong la bëgg boo ci solut café ak ko mu sol sa biiñ nit ki li nga bëgg mu bakko boo ko ko balooyee da koy jox leneen lu mu jàpp waaye andi coow rek coow lu dul jeedu xaaj loolu mënut a sottal dara da koy gën a siiwal waaye boo waxee nag ku xamut moom danaan waaye kii day font li ma nekkee dëgg waaw li ma fi def li fi def kenn musu koo fee def waaw li ma fi def boobu ak léegi kenn defu ko loolu moo ma doon mer loo <laughs> moo doon tax ma daan mer ndax damaa xam ne ci samp daaray Mbàkke Kajoor bind Masaalikul Jinaan jàngale diine dem géej ñibbisi dellu dem gànnaar ñibbisi jóge ci yéen dikki njaareem tabax jumaa woo ay nit topp ko mu jàngal ay njabootam yépp ba ñu man ba léegi jàng moomu di continuer ba léegi di jeexital ci nit ñi ba ñuy bañ lu bon ba di sàmm jikko ñooñu jaroo ci ñoom buñ demee ba naan ah, ñun fi def bu ko ñeneen ñi defoon kon buñ fi def kenn defu ko nangam nangam loolu man mooma doon merloo ndax yow ki la def ba tax nga mën a def boo defee ba eggal ne li ma fi def defoo ko fi te moo la fi def war nga xalaat sa bopp ba xam yaay kan waxoon naa leen ne mbam góor ga àndee doom ja dem sol saako bu mag ba ca àll ba doon ko sëf ca mbaam ma bàyyi ba yëkkati yu mu jógut te doom ja yëkkati mu jóg dem na ko bàyyi sa wata jógut mu ne ko maa yëkkati foofu maa yëkkati fii loolu aw liib la daanaa leen ko waxal su ma reetaan loo nit ñi dikkalee danaa reetaan loo nit ñi nag waaye ci dëgg ak ci ikk ma laa koy def ndax bi ko def euh, ki sàmm ba nga mën a sàmm ba tala sàmm boole laaj sa yeneen yi moroom di sàmm yow ngay aw nag ci biir gétt gi soo demee ba gàddu sa wet ne maa dàq sàmm sàmm bi da nga nit ñi ndax ki la jàngal ak sàmm mënoo koo dàq sàmm boo demee njaarim nga dem kër sëñ Mor Mbay Siise kooku ma ngay sàmm jikko yi soo demee kër sëñ dem fekk fa sëñ Moustapha dem moom soxna ma yëmu ma ngay sàmm jikko yi boo demee ci biir kër sëñ Tuubaa ga fekk fa école bu mag boobu nga xam ne man fa doon jàngee nga fekk fa jàngalekat ya fa nekk di waa kër sëñ dem ñooñu ñu ngay sàmm jikko yi soo génnee jëm buntu Tuuba nga gis lycée bu mag boobu fi nekk ñooñu ñu ngi sàmm jikko yi soo demee Tuuba nga dem ca tool kër ba fekk daara dañ fay tablir ngir mu nekk lycée boo xam ne dañ fay yare aw nit jàngal leen seen diine xamal leen seen bopp ba ñu xam lu bon man koo bàyyi xam lu baax man koo jëf ñooña ña ngay sàmm jikko yi soo demee Tuubaa nga fekk sëñ Muntaxa la mu fa sëmb mu di ab université ngir ñi jàng ci njàng ma suufe mi buñ fa jógee dem man a jàngi foofa ca njàng mu kawe ma kooka ma ngay sàmm jikko yi boo demee xel koom mbaa dem tubaab Mouride wala ñëw bustaanul arifina ci keto côté wala foo dem ci daari siñ Cheikh Mbàkke yi nga xam ne gone ya ñu ngi leen di jàngal wulli nag ba man koo bayloo di ko wax muy defa ko bay jàngal leen dawal tracteur mën a yor meni sari mën a yor labour mën a yor ers lonk ko ci wago won ko ginnaaw di ko diri rijji suuf lonk ay ay ay ji bay diqi bàcc dajale ba mën caa dund boole ko lii kati xasida te ñëpp jàng alquran jàng aroot jàng mantiq jàng bayaan ba nga xam ne boo fa jógee boo demee ca daara ja yor ko boo demee ca marché ba am fa cantine man koo yore boo demee bitim réew man fa liggéey su la neexee dellu ca àll ba gor ko dem ba yi kooku mu ngi sàmm jikko yi ku nekk nag ak saw sàmmiin ba nga xam ne moom ngay sàmm boo demee université nga xool formation ñoom Afi Jaañ ak fañ leen formé fa fa fa nga wulee ñaaye ñu formé leen fa ba ñu génn nga xool dongay Hizbut Tarqiyyah yi ci Sénégal ni ñu toll nga xam ne ñooñu ñu ngi sàmm jikko yi ndax amu ci kenn koo xam ne sa eh, da sàmm nit kooka ruur naam boo demee Parcelles Assainies nga fekk fa daal di amal loo jam fa def di jàngal gone yi muy école bu mag boo xam ne daanaka université la kooku ma ngay sàmm jikko yi donte aqida yi am na ñu waroo ci gisiin jikko yi moom ñoom ña ngi koy sàmm nag am na nag jikko yu yoo xam ne muy jikkoy xas nit a xeeb nit a xeebal ko diineem ak di ko yëjjeeg yooyu moom yooyu bokkul waaye nag ña ngay sàmm jikko yi ci kenn du fa génn di di di di rasta sa bopp di tox cigarette mbaa ngay sol pantalon ji dagg mbaa ngay ceg daawun maanaam li nga xam ne ñun ñëpp ànd nañ ci bañ ko soo demee foofa itam ñoom ña ña koy bañ kon ñoom ña ngay sàmm jikko yi noonu la boo demee ci Ibaadu noonu la waroon nañu ak ñoom ci ay mbir yu bëri eh, te nag ñu duñ leen xas waaye ñoom itam ña ngay sàmm jikko yi ñu man sàmmam jikko du tekki dem place de l'Obélisque nekk fa di wuuxali ko du loolu waaye nag bu fekkente ni yàlla def na nga gis aw gisiin keneen gis weneen gisiin dama defe doon man la nii laa koy sàmmee danga ko war a sàmmal gis-gisam boobu comme ni mu la sàmmale sa gis-gis kuy bëri nag yaay daanu ndax li ko tax mooy ka ca cal toog mooy xam fa nga war a botteeg fa nga war a galgaleeg fa nga war a laloog fa nga war a sukkër bi waaye bu ci biir jàkkaarloog sa waay ngeen di liwtoo moom doo ko xam kon ñi ca cal bu ñu la nee xëy sa tànkam bi joor jiital ko te sa tànkam samuñ nga arrière ko ci ginnaaw dir bu baax bu la waaji bu waaji su lee sa sa wëq nag say nga dee moom mi ngi gis loo xam ne yow miy bëri doo ko gis yow mi ci làmb ji sëgg di bëree li kii nekk ci cal gi di xool di ko gis yow doo ko gis léeg-léeg ngeen di xeex lu bon ci biir xeexin wa mu am loo xam ne dafa am faay euh, ñu ne leen déet fii faaye ngi fi euh, da ngeen ko war rek te soppi aw doxin wala dëgg moo gën wala kuur ndax du lay du kunkang te du des warit waxoon naa leen ko noonu man ni laa gisee xeex lu bon daal eh, bu la wóoree ne lu bon lii am na kàttan goo xam ne daal di koy song daan ko du yomb moom di ko coow guddeeg bëccëg nga publicité amul njariñ ndax day tax gone yi ko xamul woon di ko seeti te mën nañoo dem lang ca dootuñu dellu loolu moom lay leeral ci waxi waa assemblée nationale ji nii am na loo xam ne mënef na koo xeex te kenn du ko yëlewte kenn du ko yéebaane ñaareel ba itam jamono ji nekk rek ñi góorgóorlu ci bañ a gis suñu bopp ci dara tàmbali dara lu mel ni bañ lu bon la ngay bañ baxa géesu ko nga taxaw ci gib naa fi def kenn defu ko waaw ñi mooy def nii bu ko ñu ñëkk defoon kon kay kon kay lii du fi am waaye dañ koo defu teew dañ dañ laa xamal mbaax yar la ca xamal la mbon moytu loola ko bëgg a jóg ngàbb sa tànk ne da ngay samp mbaax di xeex mbon waa kala defaroon ba nga baax mu dox sa digg ak mbon ba nga mën a tere mbon ak mbaax soo awee ca yoonam yoonam woowee di di roy ci moom ca la mu daa def ba noppi te naan li ma fi def defoo ko fi kooku xalaat doo ko wax boo gisee islam na mu tàmbalee nga xam ne yonent bi dafa beru yi defaru bam beroy defaru ci nëbbu ba jag wëlbatiku di jëfe la mu nekk te yàlla xamal ko ko ndax ci jàng la ko jaarale ak jaamu ak woote jëme ca ak bañ a yàkkamti pour islam egg ci rek al xikmatu wal mawisatul asana moo ko fa yóbbu tinti ba neena samaratul ajala an nadama nee na itam manta an naa naala maata waaw innal insana xuliqa xawma ko waxe sax ajulan xawma nu ko nu ko yonent ba waxee xuliqal insan ala ajal tàkkusaan daa jotoon tontu na rafet ñu gaawte bindu ko moo tax ci bisub ajuma li eh, lu muy bëgg mbaamu di ko bañ da cee ànd ak gaawtu goo xam ne ak ak farlu ko rabax-rabax goo ne kenn du la ko mën a misaal waaye tey du tere bu ngeen dee xeex lu bon dangeen di samp ay daayira waxuma daayira yi dajale xaalis rek rek yóbbu ci suñ ba ñëw toog déedéet loolu ci la bokk ndax mooy liggéey yoon wi waaye tamit nag daayira jàngal gone yi di leen yar di leen jubbanti di leen tarbiya di leen tarxiya di leen tasfiya loolu daal moo mën a soppi jikko waaye kenn mun ta taxaw place de l'Obélisque di waxu ba nit ñi ba doon baax dañuy taxaw di la seetaan def la cinéma dong ak di la reetaan waaye yuuxu place de l'Obélisque moom mënut a tax ñi ba doon baax ndax bu doon loolu rek mooy tax lu baax baax kon mag ñi fi jiitu woon ñëpp dañ daan taxaw ca pincam Lat Joor di yuuxu guddi ak bëccëg waaye loola fajut woon dara dugg ci terrain bi mbëkkante ak jafe-jafe yi jàngal nit ñi mooy tax nit ñi seen jikko soppeku waaye dajeeg ñoom di yuuxu du soppi dara yan yàlla teg ci jub yan yàlla ci sellal